ñi nga xam ni bëgg nañoo gindi ku mën caa dégge dara mbake li ma gëm mooy seytaane da koo fëkk loolu laa gëm fekk malheureusement amul xam-xam am na boroom xam-xam yu seytaane fëkk waaye boroom koo xam ne xamul ba pare seytaane fëkk ko ragal naa ne mooy gën a dangereux ñun ñëpp nag danañu am responsabilité ci kanamu yàlla ñépp ñi nga xam ni seen wax mënoon naa am njëriñ walla seen jëf am njëriñ ci taxawaay bii nga xam ni moom la Mbàkke am ci réew mi ñu bank seeni loxo téye seen làmmiñ waxuñu ci danañu am lay danañu am layoo ak seen boroom danañu am responsabilité ci kanamu seen boroom ndax ñi nga xam ni ñoo koy topp di ay jaahil di ay xale yu amul kilifa ak mag ñu sànku topp ko ci lii nga xam ni moom lay woote bu ëllëgee ñooñu soo moytul ñun ñoo ñooñuy poñe ñun ca kanamu yàlla ne yàlla yàlla ñii kat nga xam ne ñooñu mënoon a gindi ñoom ñooñu waxul woon dëgg dëgg dëgg dëgg mbirum Mbàkke looloo tax ñuy wax ak moom Mbàkke nag tontu ko ci xam-xam ku ko def da ngay def erreur gis naa koo xam ni kii docteur lañ ko wax kon yaakaar naa ne am na doctorat ci wàllu diine mu def ak moom débat boppam la toroxal gis naa sax mu mel na am na fu mu ko xaw a tànc ci sóora suuratu Yuusuf ci ay aaya yoo xam ni dafa am benn stratégie bu bu muy def daf lay jéem a néewal doole te mel na na kooka xaw na ko tànc ba mu jekkadi waaye moo tooñ boppam fekk koo xam ni kii amuloo certificat d'étude primaire yow nga yor doctorat ñu leen di boole plateau ngay wax ak moom yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la kon moom wax moom ci xam-xam fan nga koy teg fan nga koy teg kan kuy wax ak moom ci xam-xam lan mu dem ci alxuraan ji nga xam ni bu xëyee suba ma ngi cee nekk di nëf na fi wuti ca lu dul aaye yu mu weddee nit ñi ak lu mu saxale ay caaxaanam loolu lees ko dul may man boog duma ko ko may li gën a taxit nag duma toog ak moom di wax wala may wax ak ku mel na moom waaye ku ne xam ku taxaw ne yow sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam gëmoo ko li yàlla yónni woon yonent bi mu wax ko ay nit ŋàbb ko ba teg ko ci suñuy loxo nga taxaw ne yow loolu mu yonent bi waxoon doyu la te ay nit ñoo la ko jox waaye nit ñu nga xam ni ñoo la jox xadis yooyu nga xeeb ay nit it ñoo toog dajale alquran bul fàtte loolu alquran jógewul ci asamaan ne putt ci kaw suuf nekkub téere dafa am fu mu jaar jaar ci ay dënn jaar ci ay xel jaar ci ay xol jaar ci ay làmmiñ bi ñu demee ba suñu boroom bëgg koo dajale mu nekk lii mu nekk mu jaarale ko ci xelu ay nit ñu am pasteef ñooñu taxaw taxawaay bu rafet teg ko ci xam-xam ak maandu ak ragal yàlla dajale ko ba mu doon lii nga xam ne tey jii ci ngay sukkandiku bëgg ko référence kon boo dàqee bee est-ce que waruloo dàq bi est-ce que waruloo dàq bi kon dafa am loo xam ne lii yabeel képp la parce que da xam ne réew mi atte woowuñu diine ne kon nañu say mbir bu yàgg da nga xam ne réew mi tamit amul yoon amul yoon yoon amu fi ndax lii ngay def nii bërki démb nit taxaw na fi ne beneen yonent amul ginnaaw yonent bi ñu jàpp ko yóbbu bu ndoxataal ko te lii ngay defa ko yées fuuf di màbb lislaam ak i kenoom su ko defee mbokk yi moom mii lii nga xam ni moom lay bëgg a weddi di sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi nga xam ni ñoo tax mu àgg fii mu àgg tey seen dund yi ñu sànk ko ci sànk ci seen alal seenu njaboot moom mii bu jundoo du doon junni at moom Mbàkke faatu dundaat junni at faatu dundaat junni at faatu mënu ca lu tolloog lu ñuy lelliwee toog nag di ko wax alquran ba tey du ko jar ndax ku déggul alquran nga koy wax lu yàlla wax ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man yutii rasula faqad ataa allah wa man tawalla fa ma arsalnaaka alayhim xafiza képp koo xam ni kii topp nga yonent bi topp nga yàlla képp koo xam ni kii won nga ko ginnaaw yàlla ne ko man yónniwu ma la ngeen di garder di leen surveiller ak di leen defloo ak déedéet yow santaane biñ la sant mooy wax ak fàttali. topp yonent bi mooy lan lii nga xam ne moom la doon dunde dundinam dundinam na mu doon dunde na mu daan jëfe na mu daan nelawe na mu daan lekke na mu daan nekke njabootam na mu daan nekke loolu ci topp yonent bi la bopp te loolu la ko alxuraan doon jàngal wa atiu llaha wa atiu rasula waxdaru fa in tawallaytum faalamu annama ala rasulina al balaagul mubin topp leen yàlla topp leen bi yonentam te ngeen moytu su ngeen wonee ginnaaw yonent bi na ngeen xam ni kat moom liñ ko santoon mooy mu jottali li nga xam ni moom lañ ko sant mu jottali ko yàlla waxaat feneen wa aqimu salaata wa atu zakata wa atiu rasula laallakum turhamun nee na dee taxawal julli dee leen joxe zakat te ngeen topp yonent bi su ngeen ko defee de mën nañ leen a baaxe ak yërmande yàlla waxaat feneen wa ma ataakumu rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent bi indil jël leen te yonent bi sallallahu alayhi wa li ko yàlla sant da ko doon jëfee jëf yooyu moom la saxaaba yi daan nettali di ko nettali muy rot ay boroom xam-xam di ko jël di ko jël di ko jël ay wax yu jóge ci maam Aïcha Abu Hurayra ak Ali ibn Abi Talib saxaabatul kiram yooya mooy xam-xam bii tey ñuy sukkandiku te Mbàkke Saaxo taxaw ne amul amul kenn du ci sukkandiku mbake soriwul ak ki suñu eh, yahudi yaak nasaraan yi suñu borom dox naan inna allazina yakfuruuna billahi wa rusulihi wa yuriduuna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluuna nu'minu li ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduuna an yattaxizu ba'da zalika bayna zalika sabila mooy ñi nga xam ne ñii nee na dañoo bëgg a dox ci diggante yàlla ak ay yonentam gëm Isa gëmoo gëmoo gëmoo euh, euh, euh, Moussa gëm Moussa gëmoo Isa weddi kee ñëw ci kii lii soriwul ak gëm naa alquran gëmuma sunna ñooñu suñu borom nee na ñooñu ñooy yéeféer ya dëgg ulaayika humul kaafiruuna xaqan wa a'tadna lil kaafiriina azaban muhina yàlla nee na maa ngi fàggul maa ngi waajalal yéeféer ya mbugal mu tar kon ku taxaw ne gëm nga alquran tuddee sa bopp alquran yi ba pare ne dangaa weddi xadis wax yonent bi gëmoo ci benn say wax foofu nga ci toll am na nag yabeel itam ndax koo xam ni ki sa àll weesuwul alif baata ay boroom xam-xam nekk ci réew mi mën la foof foof amul sax foto soqikuloo ci donc dégg nga di taxaw di fontoo nit ñi naan yàlla yàlla ki yow yi ngay wax danga ci xam dara ku jara yërëm nga waaye man yërëmuma la ndax yaa jël sa baaraam taxuñ ko ci sa bët mu safkaani ñi yara yërëm mooy ñi nga xam ne ñoo lay topp ak di la déglu loolu nag jaaxil ak ñàkk kilifa rek waaye ku am kilifa du topp ci sa ginnaaw di wax ñu ñëw nag ci tuuti tuuti tuuti xam-xam su fekkee ne mënees na koo wax jànginu alquran yi nga xam ne yii dañoo wuute ci ay mbindin walla ci ay tomb wala yu ni mel xanaa kon moos foofu moom weddi nga ko kon ba toog waaye su fekkee ne dangay weddi dégg naa ci ay bés ngay wax naan faalaana faalaana bokkul ci benn jàngin faalaana amul benn ci jànginu alxuraan bu koy jàng faalaana amul amul kon demal nga wax yow ci ban référence nga sukkandiku pour indi njàngin moomu fu ñu wax naan wa maa yafalu wa maa yafalu wala wa maa tafalu nga fexe ba xajjanteel ma lan moo ci gën a wér ci loolu su fekkee ne da ngay saxal alquran lan nga ciy mën a saxal yow nga wax waxi histoire da nee na histoire nga yow dikk jël histoire nga ne histoire u àddina taarix ci ngay sukkandiku yow pour wax ni nangam daq nañ ko wala nangam wérul wala nangam dañ ko cee dugal nga bàyyi fi ñi nga xam ni ñoom dañuy raam di raam di raam ba àgg ci saxaaba ya dañuy raam seeni xel seeni xalaat ak seeni wax ba ca saxaaba ya nga ne nangam ci alquran du noonu mbàkke wax dëgg yàlla sa autorité ngi bëgg a ëpp nag ndax sooy wax naan du noonu kon daq nga ba tey inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun alquran jii daal yàlla moo ne maa ko wàccee te maa koy sàmmal sama bopp sàmmin wa nag anam yu bare la yoo xam ni jotaay mayewul ñu koy mën a faram-fàccee nga ne dañoo soppi nangam nangam xanaa moo su dee xam nga histoire histoire nag am nga ci ay référence kon dangaa wër ne bés sàngam jamono sàngam réew sàngam di diw moo ko soppi woon ñu soog a gëm ne kon yow li ngay wax dëgg la loolu foofu lañuy sukkandiku wax ji nag bëggoon naa nga dimbalee ñu lii rek ci sa diine ju bees jooju nga xam ni moom nga ni mooy sa diine yow nga wax ñu njàpp nan nga koy defee nan ngay jàppee danga ko wax xanaa moos ak foo teg noonu ngay jàppe xam naa yàlla suñu borom de moom wax nañu jàpp ci alxuraan wax na it ay cer waaye ni ñu koy defee ñun yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu ko jàngal xanaa moos doo ubbee allahu akbar ci julli doo ko ubbee de déedéet doo ko ubbee takbiratul ihram ak eh, kàbbar ci sujjoot yi kooku doo ko def moom sangu farata it wër ngaa wax nit ñi noo koy sangoo ak itam nag booy julli lan ngay tari ci alxuraan xanaa doo tari fatiha de doo tari fatiha doo tari eh, eh, alxuraan ji ni ko yonent bi jàngale woon sallu kama raaytumuni usalli xanaa dog yaakaar naa ne moom xanaa dangay bàyyi ba mu guddi ndax summa atimmu siyaama ilal layli yàlla loolu la wax waaye xam-xam yóbbu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi topp ci ginnaawam ñu xam ni guddi suñu ko tuddee njalbeenu guddi mooy timis xurubu shamsi xam naa it zakatul fitri doo ko joxe xam naa it doo sang néew doo ko jullee doo ko sang ak yaate yëf yoo xam ne yii yow alxuraan wax na ko te mënoo koo te yow ak yoo xam ne yi yaa ngi koy yaa ngi koy def ne te alxuraan xëy na santaaneeloo ko noonu yaakaar naa ne nag su dee alxuraan rek nga gëm ñun war nañoo yow mi yaa war a tee nit ñi nelaw nag ndax kon léegi nga ta taal jihaad xam naa ne léegi nga taal jihaad ndax xam naa ne boo demee ba say tànk dëgër ba nga am mbooloo la ngay def mooy jihaat dugal ñu ci sa diine jooju parce que jihaat nag ci lii la alxuraan sant la bokk waaye noo ko déggee mbàkk mi nag du neex a freiné du neex a freiné pour mille raisons mos na ci lii muy nekk dara bi ci topp mooy ñi ko topp ay jaahil lañu yu amul kilifa kon du ñu neex a delloo ginnaaw ñi ko topp ñu bëgg lu yomb lañu kon du ñu neex a delloo ginnaaw ba pare réew mi yoon amu fi yoon amu fi ni ngeen di sàmme ay institution di ko sàmmi constitution noonu ngeen waroon a sàmme suñu diine ji suñu leen ñoroon yàlla ñor leen kon du ngeen seetaan kaa bu mel nii di am ñëpp bank seen loxo ñooñ diine bank seen loxo ñooñ nguur banque seen loxo kenn du ci wax lii nekk ci Mbàkke nag loolu laa leen ci wax du dentu ginnaaw xam naa ne waaye au moins am ñoo xam ne ñi yàlla dina leen dimbali ba xëy na bu ñu déggee lii nu wax xam ni ci caaxaan lañu nekk ñu génn ca wala keneen ku ko dégg teel koo xam bañ caa dugg ba ñu lay yóbbaale ci loo xam ne lii da lay jural alkande mbooloo yi ngeen fii dégg yu bare bare bare ñépp xam na ñu muy doxee am koom rek moo nekk à la base bu ngeen ko amee seetlu te amul nite tuuti ngeen gis ni ña ko jiite dañuy am yi oto yu rafet xëyuñu gontuñu nag amuñu njaay amuñu jënd bayuñu amuñu benn activité boo xam ne bii day générer ay pro ay ay revenu at ay 4x4 yi ñuy jar dawal lu ci gàtt gàtt 30 million lay jar dëkk ci kër yu ngeen mënta dëkk ci li ngeen di dajale yéen ci lañ koy jëlee xanaa kon nag nit war naa jëfandikoo xelam benn group su ndaw lay doon nag buy dox ci xelum ñi ci des ñu leen di cotiser loo di leen ratt ni ñuy mat mat ratte radigalaas boo muucu ba pare sànni mbuus ma kooku kon seen affaire la su ngeen bëggut a yeewu yéen la concerné waaye waxees na leen liñ leen war a wax bu ëllëgee bu ngeen taxawee ci kanamu suñu borom di poñante ñun moom incha allahu fële la ñuy taxaw lijjanti suñuy problème bopp ndax su boobaa kenn ku ne sa soxla dana la doy soxla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.